Euh, li waral bés bi mooy sëñ bi def ma defal loo xam ni sama giiru dund lool rekk laa bëggoon ma jël bés boobu nga xam ni yëkkati na kàddoom jëmale ko ci sama jëmm ju woyof ji ma ni bés boobu dama koy def bésu cant sëñ Touba sant gi nag dañ ko tàmbali alxemes jàng ay kaamil li nu jëkk def sëñ Moustapha mu sëñ Mouhamadan jàng na li mu allahu kaamil ñu jóge fi fii ñu jàng fi ñaar fukki kaamil ak juróom-ñett gis ngeen daara yi ni nu bëri woon ñu jóge fa waa ndaam ñëpp a xam ndaam ak alxuraan jàngal ma ñaar fukki kaamil ak juróom-ñett ma jël kaamil yooyu yëpp def ko addiyatu Cheikh Mat Bamba sant Serigne Touba sant Cheikh sàmba def ko addiyaam def ko àddiya soxna bu Bousso mi nga xam ni bër gannaaw suba la bésam ak addiya euh, sëñ Mamoor Anta Sali ak njaboot sëñ tubaa gépp la ko doore sëñ Modou Moustapha ba Cheikh Mamadou Muqtada la ko doore soxna Fadja ba soxna May Saxiir bàyyiwu ma kenn si njaboot sëñ Touba def ko addiya ma sàmba mu bokk ak képp koo xam ne dafa bokk ak sëñ Touba sëñ taxaa dafa doon chance yoonu murit nee naa leen xéewal bu yàlla wàcce la mu jariñ askan wi yamul rek si jariñ yoonu murit waaye askan wi yëpp sëñ Mountakha ku ko gis ku nekk da ngay ku ko dégg ku nekk wala nga gis ka da ngay bëgg gën bëgg sëñ Touba. Euh, looloo tax ma ni su may sant kat naa ko jaarale si sama bunt te Cheikh Massamba kat. sëñ Moustapha loo jaarale si moom mu àgg sëñ Massamba te lu àgg sëñ sàmb àgg na sëñ Touba wax naa leen sëñ ma sàmb ni mu dëkkook sëñ Touba ni mu taqook sëñ Touba ba nga xam ni loo bëgg mu àgg sëñ Touba soo ko jaarale si moom mu yomb kon daal lii moo doon waral bés bi lii di tey di première édition bi première édition bi tàmbali nan ka déwoon danaa laaj ndigal fu sëñ bi bëggee rek ma def ko moom moo may joxoñ ndax kat nit ki suy bëgg jariñu suy dugg ci kër bëgg ñu teeru ko ñu teral ko day jaar sa buntu kër soo juumee ba jaar sa poronteer ba nañ la ub sàcc ay yat fekk la ci moo tax man sa bunt ba lay jaar mooy sama bunt mooy sëñ Moustapha sàmb déwoon fu ma joxoñ rekk